aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw ba nu sante yàlla julli jërante bi sallallahu taala alayhi wa sallam di yeesal sunu njëbbal ak sunu moomeel ci sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di nuyu bu baax ak ziara booleem sunu kilifa yu baax yi nekk ci sunu kanam yépp di ko doore ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbakke mi fi toogee jotaayu Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ko ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu yàgg fi lool tànd ak wér di ñaanal bu baax borom Darou Mokhti Seydina Abbas Mbakke mi fi toogee jotaayu Cheikh Ibrahima Fati borom Darou Mokhti di ko ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa mu yàggal ko fi lool mbàkke te mànd ko di ñaanal bu baax cheikh mohamadul moustapha habsa ibnu cheikh mohamadou awa balla mbàkke bi jiite njabootuk sëriñ mohamadou awa balla gépp di ko ñaanal yàlla sunu borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool mbàkke te mànd ko wér waaye nag di ñaanal bu baax cheikh mohamadul bachir mbàkke bi jiite njabootuk sëriñ fàdula sa jeey min wan barab bii di Thiéyène ñaan yàlla sunu borom mbooleem njabootug Serigne Fallou Asse Dieye gépp sama boroom subhanahu wa defal leen gudd fan gu ànd ak wér ba li seen waajur bu baax wan naa loon te kenn ku ne gis taxawaay bu solo biñ ci am sunu borom may leen ñu am ci lu kawe kawe seen njort di nuyu bu baax mbooleem kilifa yu baax yi nga xam ni ñi ngi ci biir baas bi yépp di ci jiital kilifa barab bi di kilifa baas bi ak njabootu sëriñ Tuubaa gi fi ne yépp di sëriñ Xaadim Mbàkke docteur ibnu cheikh Mouhamadou Awa Balla Mbàkke ibnu cheikh Ibrahima Faati borom Daarul Moxti di jëmm joo xam ni jataay bii mu toog tey toogal na fi cheikh Mouhamadoul mustafa ibnu cheikh Mouhamadou Awa Balla jataay bii mu toog itam toogal na fi sëriñaa Abbas ndax mook Cheikh Mahamadul Bachir Abdou Khoudous ñoo yendu mu bàyyi ko fi ngir mu jottaliwaale kàddu yi mbooleem njabootu borom daarul moxti yi nga xam ni ñoo yilif barab bi tey waaye itam di nuyu bu baax ak a ziyaara sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Miqdaat moom Cheikh Ibrahima Faati borom daarul moxti nga xam ne mi ngi nii toog sëriñ bi ci barab bi ànd ak nun cérémonie bi ñi ngi koy nuyu bu baax Mbàkke di ko ziyaara di jël nuyoo mbooleem njabootug Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba gépp ak mbooleem njabootug borom Daarul Moxti gi nga xam ni ñii démb lañu fi fanaan si ñenn ñi fi lañu yendu tey ba léegi lañu yeeweeku jataayam bi mën naa yóbbaale mbooleem njabootug borom Daarul Moxti gi nga xam ni ñëw nañu yendu si mel na ni fekke nañu cérémonie bi di nuyu bu baax ak ziyaara fédération bi nga xam ni moo lëkkale mboolem daayira yi soxna Faty Isse Diop yi mu mel ni bu ñu ci nuyoo ñenn rek dana yóbbaale mboolem kilifa yi nga xam ni tënku nañu ca biir yëpp. pour li def bokk na ci lam ko dëloon mooy lu yàgg-yàgg ak njabootam danañu ñëw fekk si ko fi wéttali si ko fi kon képp koo xam ni ronu nga baas bi. wala ngay dégg sama kàddu mel na ni kàddu Serigne Touba si Amadou Bamba xaadim rasul nga mu waxoon ni njabootam danañ ko fi fekk man ngaa limaale sa bopp ca biir ci xam ni ci njabootu soxna Faty Issé Diop nga bokk. soxna Faty nag lu am te yaakaar Cheikh Ibra Faty wala sax nga yaakaar Serigne Touba si Amadou Bamba war nga ni jërëjëfati soxna Faty Issé Diop. war nga ni soxna Faty Issé Diop ndax Serigne Touba si Amadou Bamba dafa wax borom daarul moxti sëriñ Moussa Ka way ko te loo fi gis tey ak ëllëg ak booba añub liggéeyub soxna Faati Jóoba yow bu demee yow mal xiyaam ngay soog a añ te ku la xam sax dana añ te dana gañ bi sub keroog yow rek a fay soli médaille yaay def ma toog maag sama ndey ak sama baay Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba moo ko wax Cheikh Ibrahima Faati borom Daarul Moxti kon ku yaakaar Serigne Touba yaakaar borom Daarul Moxti xéewal yi nu gis oto yi bari jesneer yi bari bernde yi bari ku ci xéewlu war nga ni jaaraama soxna Faty Issa Diop waaye nag dañoo wax ni lëg bu lekkee aloom na ko gërëme coy soxna Faty Issa Diop bi mu tëddee ci barab bii juróom fukki ku sant Mbàkke tegu fi tànkam kan moo ñu wan barab bi bay Fallou borom daarul moxti ba jàmbaari Serigne Mouhamadou Awa Balla Dia Serigne Fadila sa jeey ki nga xam ni ngërëmul way juram rek la doon sàkku ba keroog am na ko moo tax way juram teg na tànkam fii mooy jàmbaar ji nga xam ni moo waxoon soxna Faati Si Jóob ni ko dinaa la tàggaleeg aw naaj ku dem ca barab bee tey xam ni bàyyi sëriñ Abo mi tàggale naag soxna Faati Si Jóob ak aw naaj yàlla nañ ko sunu borom fayal moo tax dañuy njëkkanteeg waxtu wi jël kàddu gi jox ko sëriñ Ngooñ Jeng ki ñuy jox kàddu gi nag ku mës a dégg sëriñ Fàllu rek ci barab boo geesoo gis sëriñ Ngooñ mbokk yi ginnaaw bu ñu leen nuyoo siyaare leen di jiital ci nuyoo bi sëriñ xaadim mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi di ko ñaanal taxawaay bi nga xam ne am na ko ci gannaaw magam sëriñ Moustapha yàlla na ko sunu borom kàttanal ba mu doxale ko ni ko sëriñ Moustapha bëgge noonu lañ koy jëlee di ko jàllale ci sëriñ maam Thierno moom sëriñ Maxadaat ak sëriñ Abo mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Basiiru ànd ak ay rakkam te muy jëf joo xam ne jëf gënu koo rëy ndax bis bu toll nii nga jël say rakk ne leen dem leen ma toog ndax doy ngeen ma loolu dara gënu ko kawe te loolu war naa sedd xolub mbooleem ñi koy gis soo gisee may waxee noonu rek day mat a leeral ndax ñàkk giñ ko ñàkk a gis waaye doy gu ko ay rakam doy wóolu gum wóolu moo waral moom mu des ca kër ga ci yeneen itte bàyyi leen ñoom ñu teewal ko fi ndax xam na ne bu fi kenn ci ñoom teewal jëmmi sëriñ lu ngeen koy xoole rawatina bi ñu àndee ñoom ñëpp teew fi ànd ak seen waajur sëriñ Xaadim ma jiital nag kàddu yu ma sëriñ ba Bassirou yónni woon ndax daf ne ma loolu du ma ko loo aboo ndax du ko wax ndax nit dafa munta sant boppam bi may ñëw ci tàkkusaan la ni moo dama wuur danga nga dellu seem ndéet waaye soo demee nanga ma santal bu baax a baax a baax sama rakk yi te jiital ci aboo ndax jiital nañ ma topp ma te fakk taluñu ma wan nañ ma ne su ma góorgóorloo sëñ Fallu am ndam ndax yàqaluñ ma téquñu ma loolu nag defe naa ne man mat naa ci seede bu baax ndax jege naa leen lool te ma kon su ko waxee te wax ma ko mën naa ko seede bu baax a baax wax naa ay yoon ne sëriñ Abo ñi sopp Serigne Fallou ñëpp war nañ koo sant ndax su xëccoon yàq ndax lay tax mu yàq mooy sunu borom sàkk na ñoo xam ne ñaari géew rek lañ bëgg a gis kenn ku ne seet fu mu far waaye ba mu ñëwee dugg ca biir géew bu muy benn nag muy liggéeyal Serigne Fallou rek ànd kooku magam ay rakkam yëpp ñëw topp ko ak taalibe yi kon ñëpp amel nañ ko ak cant yal na loolu sax. ma jàpp ne nag loolu man maa ci war a jiitu ndax li tax mooy li ma sañ muy ñëw Daaru Rahman yendu fa ba ngoon sëñ Bass bala ma maa gis dañeeñ wala du ma gis am na noo xam ne suñu kër gi meloon du ma ko man ndax bu ñu ñàkkutoon a bennoo damay dem toog ndax man bokk yu benn wut xajuma seen biir ndax bu yàggee muy ab rambaaj te ñaaw na ma yàlla doon ab rambaaj kon ndokk bi ngeen bennoo ba ma mën nekk seen biir ndax dama jàpp ne fii ak rek maa ngi seen biir loolu ndokk bi ngeen di melee mu mel ne sëriñ basit am na loo xam ne dégg na ko ndax bi fi sëriñ Fallou jógee juróom benni fan ci weeru avril juróom ñaari fan ci weeru juin toog na ma ak moom may waaja génnaat ne ko sëriñ bi aw sasu rëy nga yor waaye nanga xam ne li ci gën a am solo nag mooy fexe ba kër gi doon benn loola nag la la koy may na nga xam ne àddina si li ñuy bari bari ak li muy yaatu yaatu ñeenti nit nga fi am ñeent ñooñu nag ku ca bokkut mun leen a wóotu ku ca bokkut nag lu mu la dugal lu may àndal ak ñoom kooka nga la yàqal ne ko ñeent ñooñu ka ca njëkk mooy ki fi bàyyi woon ñëpp ñëw jébbalu ci yow ku dul kooka mun laa wuti ca loola ka ca topp mooy koo xam ne daa am nag sëñ Fallu ba gisatu ko mu gëlëm daw jàpp ci yow ku bokkut ca ñooñu munte wutu kooka ka ca topp mooy koo bokkal sëriñ Fallu koo bokkalu sëriñ Fallu munta wuti ci yow koo bokkal sëriñ Fallu ke leen ñeenteel mooy mag ñi àndoon ak sa waajur di jaamu yàlla muy ay dendandoo gisatuñ sa waajur ñu war leen a yërëm ku bokk ci ñooñu munta a wutu ñooña kon ku dugg sa digganteeg ñoo ñoom ku dul kooka nag ne la wóor ne defarul la bay moo nga daw kook mel ne na kon dégg na ko yaakaar naa ne ndax dara xewagul mbaa boobu déggaguma ko kon loolu mooy kaddu yi nga xam ne seen Bass waxoon na ma ko ne woon naa ko ko jottali sëriñ Abo ne woon sëriñ Xaadim nga ñaanal ko nag loolu sax yow mi seen waajur te gëm na ni bu ngeen ko ñaanee sunu borom nangu ko kon loolu mooy kaddu yi Serigne Bass yi nga xam ne njëkkoon na ko yëkkati ma di ko jottali door dugg nag ci li nga xam ne mooy mbirum fédération bi soo gisee ma defee noonu it mooy yóbbante dafa di àq soo ko waxut te manoon naa koo mujje fàtte ko te fàtte mbirum fédération bi dafa maa gënal fàtte loolu ndax dafa mel ni itteel na ko ndax wax na ma ko ma demaa ba ci yoonu mu ne ma koo bind ma ne ko duma ko fàtte kon Serigne Khadim kaddu yooyu Serigne Abo waxoon na Serigne Bassir waxoon na ko te itam muy loo xam ne seetlu naa ko ci biir kër gi mooy ay rakkam jiital nañ ko te fakkataluñu ko kon loola ñu ngi ci mi ngi ciy sant ay rakkam bu baax a baax ci nim ma ko waxee te bu ko defee war na ko ba mu ko bu ko muy lu ko war ndax li ma leer ba leer mooy wax dëgg yàlla fakkataluñu ko mbaa gisuma ko te yàlla laay seedal li may wax ñu ngi nii toog wóor na leen su ma ko waxee yàlla laay seet kon loolu laa gis ci biir kër gi yàlla na ko suñu borom saxal kaddu ya ca des mooy mbiri fédération soppe soxna Faty Isse bi nga xam ne dañoo ànd ak sëriñ Fallou doon liggéeyal soxna Faati ci jamono yoo xam ne jamono yu jafe la ndax ba muy njëkk fédération soppe soxna Faati Isa gasoil bu doy sax daawul daje sëriñ bi moo daan jënd gasoil andi ñu yendooñu ba ngoon ñu dem ca barab ba mu ñaanal ñu dénkuñu ñu ñibbisi kon tey bu ñu demee muy def noona ci mag mu toll ne moom di ñëw ne ñoo toog bari ñoo ba jeex di dajale mbooloo mi di leen soññi ñu dem ba tey jii fédération soppay soxna Faty sa mën a dajale loo xam ne mën nañ ci liggéey liggéey bi ñu liggéey ni ma koy waxee tamit loo xam ne ak bëgg ma ndax bu noonu yët leen ma xaalis bi ñu jox ko ko waaye mu jël xaalis mu jël ko ne liggéey leen ko kër gi nga xam ne mooy kër Serigne Touba ga di Daaru Rahman def fa daluwaay yoo xam ne lu guddi gudd ku ñëw bu bëggee dugg dëgg ku ñëw bu bëggee lekk lekk ku ñëw bëggee naan naan loola kon Serigne Fallou xam wax naa ne kon ku soppe soxna Faty Sarr mel nga ko njukkal ndax kat xaalis bi xaalis sama su ko laajoon jox ko ko ndax moo doon sonn te kenn sonnul lu nekk daj na ko ngir téyeen taxaw kon fédération soppe soxna Faty Sarr bu ñu amee dërëm mu bàyyi koog ñoom ne leen liggéey leen ko soxna si ne ñëpp seede ne moog lu mu génnee ci poosam joxe ne liggéey leen ko soxna si benn la rek ndax su màggal gi jàlloon mooy li fa daj leen moo ko kenn mu sañ-sañu téye ko mbaa ku ko téye bu boo laajee doo am ndax nit ñi joxu ñun soxna Faty li jox te moom la yàlla sédd soxna Faty waaye yéen waa fédération bi ma leen di soññuwaat bu baax soññuwaat bi nag man fi ma nekk laa yox damaa wax ne man de ba fi Serigne lu jógee sama diggante ak yàlla bu ñu newoon at mu nekk ku nekk nangam ngay fay door a bokk ci liggéey bi su nekkee sa poos fukki at laay fay ngir bëgg cee bokk yàlla même kumpa xam na ne liggéey ba wàcc ñoom ñi ñu fi bàyyi ñu saaga ma ak ma liggéey ñu gërëm ma laa ndax teguma sama bët ci kenn ku may sëñ Fallou mu màndaloon loolu nag maa ngi leen ci soññ bu baax a baax yéen ñi nga xam ne maa ngi yéen ñu ànd liggéey bi ngeen di samay njiit mànd ak yéen ma di leen waxal nanu delloo feddliwaat sunug laxasaay bu baax a baax nit de soo àndee ak moom di jëf di dox di wax ba noppi koo gis tam wóor la ni da nga ko fekki kon la ngeen bokkoon yor da ngay góorgóorlu téye la nga téye woon ba noppi jéem a téye la mu téye woon bu ngeen ko defee rek mu baax mel na ne nag yéen nga ci yoon ñu ngi leen soññi bu baax di leen sant bu baax la mu daan wax jigéen ñi lu ma ko sañ ndax am na cër bu mu leen joxoon am cër bu mu jox góor yi sañu ma ko ndax lam sañoon sañu ma ko waaye xam naa ne daal jàmbar ngeen ndax lii ci kër gi seen suut ngeen dajale joxe ko liñ fi togg seen suut ngeen dajale togg ko te yéenay mujj a mos mbaa sax su doyut du ngeen ko mos te yéenay fanaan ci baas bi kon yéen su ngeen nee gëm ngeen soxna Faty Seye ñëpp war koo gëm seen taxawaay mat na sëkk seen diggante ak Serigne Fallou waaye nag na ngeen xam ne day xaw ma ñi mujj a dugg waaye ñi ñëkk a dugg ña ca ëpp mënuñoo fay Serigne Fallou ndax lu ci nit ma sa xewal rek ñëw na teew ànd koog yow musta manque mel ndaje moo xam ne kenn ci waa daayira bi moo ko am te ñëw teew fa jëmmal ko ak lu ndaje ma tuuti tuuti ba ni fi bàyyi ko kon nag loola nañ ci dellaat suñu xel bu baax a baax gën a feddilaat suñu laxasaay fas yéene bés bu nu moom du nu rus loolu mooy suñu ndam leneen lu dul loolu nag du sëriñ Fallou moom wàcc na ndax kenn ku nekk xam na ne yaataloon na jekkal na te loolu mooy jikko ci ku mu àndal bi ñuy waaj màggal gi nee naa sëriñ Fallou day ku mu diggaaleel addiseelu la dara ndax la ko war lépp def na ko sa digganteeg moom ndax munta weesu di dox guddi di dox bëccëg te lépp jëm ci lu baax kon kooka moom ku mu diggaaleel rek képp ku mu diggaaleel la war sa digganteeg moom ci lu baax deseelu la ca dara kon nanu ko suñu borom fayal bu baax a baax a baax Serigne Fallou nit la koo xam ne ku ko jegewul dëgg-dëgg mënoo koo xam waaye ku ko jege dëgg-dëgg itam te xamoo ko boo sàgganee gaañ mas nay waxtaan ne ma Serigne Cheikh Awa Balla mas naa wax Serigne Mouraw Balla ne ko ni ma mel de nga di ma wax ne ma dafa ëpp ci ak tànk dafa mel ni moo tane ndax man li may def mooy boo nee tegg sa tànk mën na la teggil yow na da ngay bàyyi bu nu yegg si digg bopp te bu fekkee bu daanoo gaañu. moom moomu nag noonu la meloon da lay bàyyi ngay ñaañ rek boobu sens nag bis booy daan da nga ndax du la ne mu ko fii li may joxe seede rek mooy bi soxna Njóoba moom sëriñ Mouhamadou Koso bi mu nelewee dañoo jóge Koso di ñibbisi boobu man maa yorooto bi dawal ñun ñaar ñu nekk ci kenn ci sëriñ Touba topp ci ñun mu xool seetu bi seen ko mu ne ma jàddal nii ma jàdd mu ne ko jàllal kooko jàll mu ne ma doxal ma dox topp ci moom kooko xool ko seen ko taxaw ne ko jàllal sëñ bañ ñu jañoo sëñ bi bañ ñu jañoo sëñ bi bañ mu ne ah sëñ bi dafa rek dañuy guddee rek sëñ bi ne ma bàyyi yoon di jaar yi daaru leen jëm ma bàyyi yoonu daaru rahman jël yoon daaru musti bi nu dogee tali bi mu ne ma dëppal daaru rahman leen jëm bi ma dawee tuuti ne ko ah man de sëñ bi li nga def jaaxal na ma mu ne ma ah man de seen taali bi damaa jaaxal jii léeg Serigne tuubaa jii léeg sëtu Serigne Touba koso ba daaru rahman di ko xëpp pënd fallu du ko sañu nu yegg si Daaru Rahman fekk ko muy julli mu taxaw ne ah gande koo fekk seen penc muy julli da taxaw mu daal taxaw jàdd bi kooku sëlmalee ñu nuyoo ba noppi mu jàpp sama loxo ñu dox ba dànd sëñ bi mu ne ma ah mbaa yeboo ko ndax miineel gi ma ne ko déedéet mu ne ma bu ko yab de ne ma tukkal la tukkal nag bu sukkalee ay ngaax da ko bëgg a yóbbu waaye tere luti ngaax kon li ma wax ne sëriñ Fallou ku ko jege te xamoo ko da nga gaañu mooy mbirum Serigne Fallou. yim bisimilahi rahmaani rahim barke sëñ moo daaw balla barke sëñ moo daaw balla sëñ moo yàlla na yàlla taas ci barkeem yàlla dimbali ñu ni koy defee ati at sëñ Fallou sa jeey jaaraama wàcc na liggéey def na li mu war def yëpp ñun nag ñoo ci des muy doom yeeg taalibe yeeg ñëpp fàllase jëy li mu war a def def na ko ceen gi ku ko feeñal ba lii am ci sa jaan wàcc na am nga loo xam ni kenn lu ko amati lii ku sañoon sa waajur def ko mais yàlla moom la ko féetaleel kenn mënu ci dara bu dul woon moom Thiéyène du feeñ Thiéyène du am lii mbooloo mi taxaw ñëw fi fees dell mais nag dañuy fàtte waxi sëñ Touba sëñ Touba dafa ne woon Ceerno lu ma am danga ko am sëñ Touba moo tax ñuy màggal soxna jaara ca soxna fàtte yi te dañuy fàtte nii bi mu fi jógoo moom rekk la sëñ Touba nii maa ngi doog ko ñàkk waa jur waaw ku def nit waa waajuram defal ko loo xam ni mosu koo defal kenn denc ko ci béréb bii tudde ko doom waa lu mu jox waajuram dina ko jox moo tax ma ni ceen gi mook poroxaan ku xam poroxaan ca ndooltee la da xam ni ceen mi ngi ci tànk yi te kitaabu naa daan dem ba xam ni lu poroxaan am ceen dina ko am waaw loolu moom lu nu leer la ñi ngi sant yàlla nag ah euh, li sëñ ngoon wax ci waa kër sëñ Fallou Asta Dieye man naa ci seede parce que duggoon naa ak ñoom duma ma ñoom ci dara bu ma gisoon ay jaaxi jaaxi ci ñoom itam am naa fayda joo xam ne ku ci nekkul ci dëgg mën la nekkuloo ci dëgg loolu seen bàyyi yaakaar naa ni seenu ci man maa ngi sant yàlla bu baax baax di sant nag sëñ moo daaw la ah li kiy wax dama ni na man man naan bennum xel laa bennum xel mooy kenn moo xam ne mosuma koo jàpp képp ku dul sëñ moo daaw Balla xel ak xol du jàpp ñaar man kenn benn xol laa am kenn laa bëgg muy sëñ moo daaw Balla keneen ku ma mën a gis rek mën naa mas maslaa yow jox la cër mais bëgg-bëgg bi mu dama ball la te mbër que la jàggi kenn weddiwul li mam Thierno mooy waajuru sëñ moo daaw bal kenn weddiwul sëñ Tuubaa mooy ngir yoon wi mais buñ dellu si woon jamono ñoom ñett toog ca sëñ moo daaw bal lay dem parce que moom moo wax ma dégg mu def ma gis loolu nag kum doyul dara du la doy buñ fi doon wax waxuma la nag ngir li ko Thierno jur ngir mu fekk ko ci Mbàkke mais jëfam rekk ci àddina doy na sëkk buñ ko doon wax booy seet góor booy seet nit ku mën a dimbalee nit koo xam ne ku mel ne sëñ boo dama la jafe na neexu la wax nag ci jamono ji wóor na ma ni ku Thierno jur dimbali na la xëccoowul dara ay rakkam loolu yombul yàlla nañ ko yàlla fayal ah yéen nag lii ngeen di def yombul bàyyi seen soxla dajale ay ngeen nii jigéen surtout ngeen créé daayira ca bañ a tàyyi ngir ki ngeen yaakaar yàlla na soxna Faty seen may seen ndam yàlla ngeen am li ngeen ti nammul lépp ñun nag ñi ngi sant bu baax a baax sant gi ñu ngi koy commencé ci sëñ xaadim mii ah mii représenté sëñ <coughs> Moustapha ak ay rakam tey waa daaru yëpp ñëw nañ fi loolu na ñoo xam ne ku ma ci tasal damay ni kat sa rek nga ñëw dëkk bi yéene ko moom kenn ëppalewu leen seen maam ngeen siyaare si mais nag toog ba heure bi ku ko def itam ñu gën laa sant ñi ngi sant maam Thierno sëñ Maxtaat ah firndeem li muy def ci xale yi yàlla na ko yàlla fayal boppam parce que nit ki itam boo nekkee daaru mussi ñu ni doomu daaru nga wala surtout maam nongo ngay tàggat yenn nit ni ko def ñun dañ ciy bëgg mun nu fekkee mbooloo mi itam daan seddeel ni mu ngi ci yoon bu baax yal na ko yàlla lafal cat yàlla jubal ko ci lépp muy def ah xale yi ma gis Ndakaaru mu nekk fay dem mi ngi leen tàggat tàggat bu rafet loolu ndam la mais nag du bett ci sëtu Thierno yàlla na yàlla dimbali ah sëñ Abo ñi ngi lay yóbbante see rakk jaar góor gën leen a góorlu ngeen gën a jàppante li ngeen am yombul li leen koy gën a dëgëral nag ngeen gën a jàppante jëpp ku nekk def na sa moroom sa bopp bu ngeen ko defee li ma leen di wax rek bu kenn bàkku ni donc kii ma jur xam nga lu leen ci fal sëñ fallu rek a fi nekk kenn amul barkeegu dara barke sëñ fallu ngeen di demee de bu kenn naw sa bopp wala naw sa ndey yaakaar ni dam geño gi rekk fi nekk sëñ fallu rekk fi nekk sëñ fallu sëñ mu daaw bal loolu nag sooy boo ngeen xam ko damay wax ni kenn weddiwul meen am na mais li leen boole ci sëñ Modou Awa Balla Fallou ak sëjee la de li tax ngeen may dee édité fii ci euh, yéen Fallou ak la fonkante leen ngir Fallou ak sëjee jàppante leen ngir Fallou ak sëjee ke leneen lu ngeen def rek perte ma bu kenn yaakaar ni yaa gën sa moroom jàppante leen fonkante leen lépp lu ngeen def barke sëñ mu naw bal da ko gis lu ngeen namm ci béréb bi mën ngeen ko am seen bàyyi liggéey na ca wóor na ma ne am na ngërëmu bàyyam loolu moom moo tax mu féete ak yéen bi du hasard de sëñ Fallou dafa bàyyi woon boppam jox loo ko leneen loo tudd lu sëñ Moda Balla sëñ Moda Balla ko gënal moo tax lii itam kenn du bett kenn ci moom maa ngi jégalu wax ji bu guddee. yéene rek la bis bii bisu soxna si damay wax ñun Daaru Muxti yàlla dimbal nañ loo xam ni kenn amu ko nan sant yàlla bu baax sëñ Tuubaa ak Cerno am na ñu bëri boo déggee ñuy wax ni kii mooy premier mi mooy deuxième mi mooy quarantième kii mooy jébbalu mais maam Cerno def cee bokkul maam Cerno sëñ Tuubaa rek moom rek la wax ni sunu yoon wi wax ko keneen ca képp ku mas a ànd ak sëñ Touba yónni na ci Thierno ca mosul yenn ceeb Thierno ca kenn loolu mooy firndeel nii moo Thierno benn la la mu jox Thierno jox ko kenn xoolal kuy dem tukki lu toll ceeb Thierno nga am 33 ans ñu dénk la yoon jox lay doom jox la lépp loolu yombul sëñ Touba du jeyil sëñ Touba xam ne li muy def. boobu la gënoon ne metti toib yaa ngi fi metti metti yépp mu ni Thierno jox naa la yoon wi xam nga am nay rak xam nga bu ko nekkoon mu ne kii na téye yoon wi kii na téye lii kii na téye lii lépp la boole jox Thierno loolu wóolu wóotule passé wu ko c'est que Thierno rusalul rusalul kenn bi mu del see itam billaahi wallaahi mel na ne lépp yokk loolu nag nañ ko sant suñu bopp yàlla nañ yàlla fayal cerno yàlla mii yàlla defal yàlla nañ yàlla ñun taalibi cerno billaahi wallaahi duñ des gannaaw nan sabablu rek yàlla dimbali ñu ci lépp lu nu song nag dama bëgg itam ñu bàyyi yaafuus gi parce que li fi des itam dafa am loo xam ni wax Cerno fi nekkoon fii moo fi nekk di ci jëf jëf moo des ci ñun dafa des nag de nan ko wax de parce ñu bëri daanu raw ci ñàkk jëf sunu toppee suñuy wax rek di wax maam Thierno moo fi raw maam na moo def lii ca jëf gi àndoon ak loolu itam ñëpp daanu rocc leen góorgóorlu suñu bopp xam suñu valeur def lan waroon def la mag yi doon def itam buñ ko mënul itam jéem yàlla na yàlla fayal boppam yàlla na yàlla dimbali ñi ngi jégalu baalu àq ñëpp yaa di jëfati